sënkëm yamook xibaaru digg bëccëg gi dal leen ak jàmm li ci gën a fës bokk na ci tey ko juróom-ñetti fan ci weeru mars euh, yamook nag bés bi ñu euh, jagleel ci àdduna wërngal këpp euh, màggal ak ak yelleefu jigéen ñi moo tax nag ba waa ko si depp lëkkaloo ak ñi yëngu ci ñàng meek ñàngale mi ngir rek daal di waxtaanee lépp lu jëm ci xoxatal yi ñuy tekk jigéen ñi ci lekkool yi naam sax mbir mi le bañ koy dara gëstu ba tey mënaguñoo xam xayma bi fu mu toll ci fukk si fukk ak ñeenti euh, diwaan yi ci réewum Sénégal ba tax na sax waa COSYDEP namm nañ cee amal ay liggéey yu am am solo njabootu Cheikh Oumar Foutiyou rafet lu nañ bu baax li njiitu réew mi daal di rek woote waxtaan ci digganteem ak kujje gi ba tax na sax Oumou Salamata taal di doom ci Thierno Mountaga Tall dafa jàpp ni rek euh, li ni mel kujje gi gépp dañoo war a dem wuyu ji njiitu réew mi waaye tamit jaaree na fa màggal jigéen ñi ci bës bu rëy bile euh, bi nga xamante ne moo nekk ca jàmm gën soo teewul dina tëj ndax nag dafa màgget lool boobu bâtiment ñu tabax ko ca jamono jamonoy tubaab ya lañu fay jëfandikoo lépp màgget li ni mel tax ba ñu fay liggéeyee di woote wàllu laata làmbaay di ñaaw li jëm ci coowal kër ya ñu daaneel ca gàddaay atte gi nag dinañ ko amal fukki fan ak benn weeru mars bi ñu jëm li ni mel tax ba bi nga xamante ne moo boot ña ca am ay jafe-jafe jàpp ni amuñu ci xel mu dal benn yoon ndax nag mbir mi la dafay dox ci seen diggante ak promoteur foncier boobu di wuyoo ci turu Babacar Fall bu lii lépp weesoo daan ci teg li gën a fës ci yëglekaay yi mbokk yi mooy gën fës ci xibaar bi ba ci kàttan fàcc gi nekk mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi nañ ko waxee woon ca euh, bopp ba tey yemook euh, juróomi fan ak ñett ci weeru mars atum 2019 àdduna wërngal këpp di ci màggal ak yelleefu euh, jigéen ñi ba tax na sax waa COSYDEP daal di lëkkaloo ak kuréel yuy yëngu ci njàng mekk ñàngale mi ngir waxtaanee xoxotal wala sax xoñañal yi ñu teg jigéen ñi ci lekkool yi naam sax mënuñoo rek daal di xayma xayma bi jaar yoon ci lim bi nga xamante ne mooy am ci fukk ak ñeenti diwaan yi ci Sénégal gépp waaye teewul waa ko COSYDEP ñooy woo ñi nga xamante ne ñoo bokk ci société civile bi ak euh, ñeneen ñëpp ngir rek ñu jàpp ci boobu boobule xeex ngir euh, jëlee fi euh, li ni mel ci nu mu gën a gaawee waaye tamit fexe ba ñoŋal taxawaayu jigéen fii ci réewum Sénégal rawatina ci daara yi ñu ànd ci ak ay dameen ñas ñu koy faral di ñàkkal fayda métital wala boog sàkku yi ñu amal ci kaw xale yi jàng ci biir école yi wala biti école yi doon na loo xamante ni nag tey ji ko si depp ak ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu jàng ak jàngale bi waxtaane nañ ko bëccëg bi ñu jagleel jigéen ñi doon ci ab porox ndoll métital yi rek gis nañ ni euh, dañ leen koy teg enseignants yi mun nañ leen ko teg ci biir école bi wala xale xale yi nga xamante ne ñooy seen naataangoo nekk ay góor nekk ci biir école bi waaye tamit ci yoonu école bi mag yi nga xamante ne dañuy sàkku xale yi donc tey ñu indi woon fi xale yi jigéen yi parce que dañoo yàgg dégg mag yi di ko waxtaanee mais tey ñu jox par jël micro yi tàllal ko xale yi jigéen yi nga xam ne ñi ngi ci biir école yi pour ñu wax ñu ñoom yan cas violence la ñuy vivre. politique, mais plutôt pour parler des violences que subissent les filles mu doon loo xamante ni nag day gën di law waaye natt li mu jigéen yi mu jot a dal dafa doon jafe-jafe ci ko si deb loolu nga moo gën a nekk euh, problème bi tey ndax kat jàngoro soo ko bëggee saafara il faut nga xam jàngoro bi nan la fan la ak kan la touché donc problème mu chiffre yi daal mooy problème bi nga xamante ne muy société civile bi muy ko si deb ak i partenaire am war nañ ci jug taxaw pour am benn rapport boo xamante ne day touché région yëpp. ci kanam yooyu les métti nag di dal ci kaw xale jigéen ñi yile ñoom yile acteur jàpp ni rek dafa war rek ñu ut ci ay safara yuy dëgër. xale yi jigéen ñi euh, génnee nañu ay solution solution bi ñaari solution yi ci gën a fës benn xale bu jigéen wax na ko moom daal buggoon na euh, école boo dem mu am benn boîte à boo xamante ne euh, xale bu jigéen boo xam ne mettital nañ ko mu nekk ci biir école bi wala ci bitu école bi wala ci yoonu école bi nga mun a jël foofu bind ko dem dugal ko ci biir boîte à lettres bi dénoncé ko. loolu ñu jaarale ko ci éducation bi yar bi xale bi di am ba mën a bañ violence bu ñu ko mënti teg mu bañ ko. Euh, fu mu mën di dem mu sentiru boppam que ne moom moo war a nekk njiit bi. société civile bi lee li mu gën a bëgg jamono jii mooy bi lépp problématique rek ñu daal di koy dugal ci politique éducative yi jaarale ko ci jox jëmm mën-mënu jigéen ñi ak ci biir lekkool yi le jërëjëf Aïda Mbène Niass ñambatuk Cheikh Oumar Foutiyou Tall rafetlu nañ bu baax kàddu yi nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall jot na ko yëkkati di woo kujje gi ngir rek ñu ñëw daal di toog waxtaane réew mi li ni mel nag tax ba Oumou Salamata Tall di doom ci Thierno Mountaga Tall di sàkku ci kujje gi ngir rek ñu dem wuy ji wooteek njiitu réew mi waaye moom Oumou Salamata Tall itam jaaree na fa rek ngir sàkku ñu fexe rek ba jigéen mën a moom boppam ci wàllum koom ñu teewlu ko moom moom Oumou Salamata Tall nguuru yàlla moom nguuru yàlla moo koy joxe te kenn rek la koy jox te yàlla xam na li gën loolu lay def mais lu ci dem loo gis tamit àppam la donc opposition bi tam dañ leen di gërëm parce que nag bi yëf yi paase wax dëgg yàlla ñoom i tamit euh, kenn déggul ñu ne nañu def lii wala nañu taal wala nañu boyal. wala jël na réew ñu jox ko ki mu soob. ak ki mu ko neex ndax yàlla moom buur la ma yaakaar ne ñépp dañu war a ñëw jàpp ci liggéey énergie bi ñu doon def ci lee ñu lu def ko feneen def ko ci jàmm ji Sénégal am jàmm ndaxte tey jii ñun ay yaay lañu ñun yaay yi nag bu ñu sañoon suñu doom yi di liggéey ñun ay jigéen lañu dañu am suñuy jëkkër yoo xam ne dañ leen di war a jàppale kon nag ñu sañoon xale yi mu wutal leen ay xëy am na sax lu président def mais am na lu mu war a yokkaat bu dee jigéen ñi ñépp xam nañu ay liggéeykat lañu dañ leen war a jàppale microfinance yi fi nekk ñu oyofal leen parce que nag yi itam dafa seer ba nga xam ne bu ci jigéen duggee tamit li mu euh, coono bi mu ciy am da ngay xam ne jaru ko loolu yépp président Macky Sall bëgg nañu mu jàppale ci jigéen mu di jigéen di yëngu ci wàllum entrepreneuriat euh, di wuyoo ci turu mat Madeleine Cécile jaata euh, euh, daanaka ci lu bari lay yëngu ngir rek gën a fësal jàmbaarteem ak bëgg-bëgg bu mu am ngir moom boppam ci fànn yépp rawatina ci wàllum koom liggéeyam yooyu le moo tax sax ba mu jëloon raaye wala sax ñu ràññaatle ko ci li ñu dippee prix Kalama ci atum 2018 moom Madeleine Cécile Diatta jaare fa nag di sàkku ci képp kuy jigéen ci bés bi nga xam ne dafa yemook euh, fukk euh, dafa yemook euh, juróom-ñetti fan ci weeru mars ci képp kuy jigéen mu daal di rek taxaw ngir gën a yokk jom yokk njàmbaarte ba mun a rek fu mu nekk ñu mën ko fa ràññaatle ñu ànd ci ak Samba Balde. mu juddoo ci ñaari fukki fan ak ñaari ci weeru novembre atum 1984 fii ci Kolda te dëkk ca quartier Bunakan moom mooy. Madeleine Cécile Diatta entrepreneuriat loolu moo nekk ci li nga xamante ne loolu lay yëngu. ci affaire commerce laay yëngu ci affaire élevage maraîchage vente de produits yi nga xam ne ci affaire de légumes tout ça je le fais en même temps. am fanweer attaque ñeenti yor taay bu yem te mu ñuul ginnaaw bu mu defee ay études académiques ak professionnelles loolu nag tey jii da jàppale ci biir activité bi nga xamante ne mu ngi yëngu. jàng mi daal dafa ma gën a améliorer tamit euh, gën maa xippil gën maa euh, taxawal tamit ci li nga xam ne dafa am njëriñ tamit parce que boo jàngul tamit am na activité yu bëri yi nga xam ne euh, doo ko mën a def moo taxit njàng mi tamit c'est important aussi c'est intéressant aussi. ji ci activité bu mu nekk mu ngi koy indil ci weer wu ne chiffre d'affaires bu koy dalal xel. tout à tout de 500000 yi nga xam ne par mois dama koy am. engagement am ndax koo jog prix bu ah. mag bésub fàttaliku Madeleine Cécile Diatta du musa fàtte bésub 28 janvier bi passé nekkoon ñaareelu édition atum 2018 bu prix Kalama bis boobu moom moo nekkoon premier lauréat. prix Kalama tamit man maa doonoon premier dauphine bi nga xam ne man maa ci bi nga xam ne maa ko gagné prix boobu ah góorgóorlu la de parce que boo góorgóorloon tey doo ko doon am. lii le 8 mars leen Cécile Diatta mu ngi woo bépp jigéen ngir ñu gën a góorgóorlu. maa ngi woo tey képp jigéen bi nga xam ne mu ngi ci activité. góorgóorlu ci comme ni man ni ma góorgóorloo tey. maa ngi koy ñaan yàlla jàppale ko mu jëm ci kanam activité yi daal nit ki daal mooy jóg jigéen daal boo jógul daal lépp du baax. foo nga jóg jàppale sa waajur jàppale sa entourage aussi ci ni bépp joolaa Marlène Cécile Diatta togg bu ko gën a neex mu ngi koy yóbbu ci benn palaa bu ñu duppee sebon lu ganoon ci moom jëkkër nekk ci wetam. Euh, man amaguma jëkkër nag célibataire la. célibataire bëgg nga jëkkër. Ah, naa jëkkër bu ma ko amee man sama plat préféré c'est nag parce que joolaa moo tax ma bëgg ko ñànkataan bi ba ko bëgg. <laughs> entrepreneuse la mun nañ ko wax Madeleine Cécile Diatta moom nag tey jii dafa nekk benn jigéen bi nga xamante ni dafa doon exemple ci leadership féminin jërëjëf sàmba Balde jigéen ñi ndeer doon firnde ci jàmbarte jom ak fulla yi fi sunu maam yi bàyyi fii ci réewum Sénégal mu doon taarix bu nga xamante ne si eh, metti na lool waaye nag askan wi bépp dañ ko war a xam li ni mel di gis gisu bindkat bi di Alioune Badara eh, Bèye mu jàpp ni jigéen ñooñe ay rayukaay yu mat sëkk lañ ba tax na sax ba sup juróom-ñaari fan weeru mars dañ ko rek war a dugal ci calendrier républicain bu réewum Sénégal ngir rek ñu ci mën a màggal képp kuy jigéen te bàyyeekoo ci réew mi rawatina ci àdduna wërngal këpp ñu ànd ci ak safet ko Safiatou Koli. mënuñu wax ci taarixu talaatay ndeer te sax tudduñu jigéen yu amoon taxawaay bokkoon ci royaume bu waalo muy mbir bi ñu bind ak doom ci suñuy téere jàmm bi lañ doon bañ parce que temps yooyu bu ñu la jàppee bu jàppee ay jigéen walla ay xale yóbbu gànnaar donc ay jàmm la nekk ay lingeer lañu ay c'est-à-dire ay buur lañu ñooñu si seen tradition comme ni ma ko waxee dañu nekk royaume bu bu bu am bu am fierté donc ñooñu loolu ñu choisir mooy arme bu gën a metti bu as euh, safara si mais moo tax ñu koy woy ba léegi. ñu bokk xaru. loolee nag day firndeel cosaan. bu maam yi bàyyi fii. parce que pays dëkk bu amul histoire du am référence. te femmes yi suñuy femmes yi ay références lañu. moom nag muy xamle ni taxawaay bu jigéenu ndeer amoon daanaka sax dañ koy fekk jamono ji ci jigéen yu Sénégal. nga gis xeex bu baax xool leen ci sport bi dañu am jom boobu dañ koy wone jigéen ñi en général koo ci confier responsabilité rek daf koy réussir. donte ni ñu ngi jéem a dekkilaat taarixu

mbir bu yéeme waaye bi nga xamante ni kenn rekk mënu ko fàtte ci Sénégal taarixu jigéen yu ndeex amoon ci 7 mars 1820 ñu boole woon xaru ngir dëggal seen bopp ngir seen dëkk waay it seeni valeur ndeysaan jërëjëf Safiatou Coly suñu waxee ci wàllu yoon jigéen ñu bari dañoo jàpp ne rek euh, bu ñu taxawee ci seen kanamu jëkkër dañuy ñàkk lépp lu jëm ci seen yàq ak seen yelleef mu doon lu nga xamante ne si mën nañ ko nemmeeku ci waay dencante yu nekk fii ci réewum Sénégal ñu jàpp ne nag yar bi moo tax li ni mel daal di am ba tax na sax mbootaay bi nga xamante ne moo boot ñiy yëngu ci wàllum yoon fii ci réewum Sénégal euh, jàpp ne rek dara waralu ko lu dul ñàkk xamu euh, jigéen jigéen ñi waaye tamit dañ cee war a taxaw ngir rek yee leen ngir ñu gën a mën a xam la leen fa tax a teg waaye seen ak ak seen yelleef tamit ci seen biiri néegu sëy ñu ànd ci ak Anta Diédhiou mu doon ab seetlu ak ak yelleefu yenn ci ay jigéen mel ni lu seeni jëkkër talul lu ni mel nag tax ba étudiant bi la jàpp ni rek ci yar gi la. je pense que le vrai problème ça vient déjà de naa ni jafe bu njëkk bi mooy ñàkkum tàggat gi nga xamante ne moom lañu ñu waroon a def daal di yar xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi ndax dañoo nekk ci société boo xamante ne jamono ji ku nekk ak ni la neex rek ngay doxee gis nañ ne góor ñi ñoom duñu rek dugg ci biir waañ bi te moonte de jigéen ñi yaakaar nañ ne loolu mel góor ñi war nañ koo mën a def ñoom góor ñi nag dañoo yaakaar ne loolu jigéen kese la war bu fekkee ci lu soxal wàllum yoon ñoom tamit dañoo jàpp ne jigéen ñi amuñu fi seen baat te moonte de seen yelleef la ñoom jigéen ñooñu comme ni nga xamante ne noonu la leen ñu ñoom góor ñi ñuy rek daal di joxe li ñu xalaat ci wàllum yoon. Ils ne peuvent pas aller même se faire soigner à l'hôpital sans l'autorisation de leur mari. jigéen ñu bari amuñu lii di certificat de mariage loolee nag mën leen a sànq ci lu bari tamit problème la parce que boo amee boo amee jëkkër amuloo certificat de mariage c'est vrai que on dit souvent que ne certificat bi ñu lay jox ci jàkk ji di dina la dina la mën a permettre nga am yenn yenn yenn kii au niveau de la justice mais nga am sa certificat de mariage moo gën a wóor parce que exemple boobu ma la jox sànq soo marié tey amuloo sa certificat de mariage man gis naa sama benn xarit boo xam ne marié na ak jëkkëram boo am doom yoo xamante ne presque am nañ plus de 16 ans 17 ans amul certificat de mariage bi mu ma ko waxee ma ne ko yow yaa ngi yaa ngi ci xottu gerte instant bi yaa ngi ci erreur demal nga wut sa certificat de mariage nga teg parce que suba sa sa sa avenir doom ci boppam sax yaa ngi leen di bafoué parce que on ne sait jamais. bu nu sukkandikoo ci ñi leen di yëngu ci wàllum yoon fii ci Sénégal jigéen yooyee dañu soxla ñu leen di ñaax ngir ñu xam seen ak ak yelleef. mooy ñàkk xam ñàkk xam bi dina tax na souvent ñu jalgati seen seen seen i ak yelleef parce que xamuñu te demuñu seeti information gis nañ ne ci mariage yu bari xamuñu ko xam nañ ne fu neex mun nga fa marié mu doon ci église ba jàkk ja kër ga pour mu valable benn koy yóbbu rek officier d'état civil bi moom mu daal di ko mun a constater. mu seede ko ngeen am seen papier mariage mais pour divorcer tey moom pour nag mu tas benn bërëb rek la mën a nekk mooy tribunal ñàkk xam la rek xanaa fexe xam te ku xam-xam ak morom du ñu bàyyi benn occasion jotaayu jigéen bu mu munti am bu mu munti nekk dinañ ba utal daal porox ndool fa lenn wax ci seen àq ak seen yelleef ñoom euh, famille bi jëkkër yi xale yi ñu ñu wax ak ñoom ci seen àq ak yelleef bi du ñuy def mooy que xale yi nga xam ne màggaguñu ñu fexe ba ñoom it di leen informer ci seen i ngir mën a jot seen certificat de mariage wala sax lii di papier de divorce yenn ci ay jigéen jot ci jafe lool di leen ñaax ci seeni àq ak yelleef doon lu am solo lool lu ni mel nag ñu ci bari ci askan wi jàpp ni rek ñëpp ñoo ci war a jàpp. jërëjëf ant Diédhiou ñu wutali ca banlieue bu Ndakaaru daal di wax ci leneen ca jàmm gën nag l'hôpital ba fa ne soo moywul dana rek daal di tëj ndax nag bâtiment yi dañoo màgget lool ñoo ngi ko tabaxoon ca jamonoy tubaab ya loolee nag dolleeku ci. jumtukaay yañ fay euh, jëfandikoo dañoo màgget lool dara euh, baaxatu ci li ni tax ba ñu fay liggéeyee euh, di woote wallu laa làmbaay di ñaaw yile kàddu ñu ngi ko doon yëkkati ca bés bi nga xamante ne kuréel gi boot jigéen ñiy liggéeyee ca saar ñëwul nañ fa ngir rek jébbal leen ay jumtukaay yu bees tàq ñu teewlu laa sana jàndi mu màgget lool ndax bañ ko tabax ci jamono indépendance ba léegi poste de santé bu jàmm a gën ci jamono ji daanu la gën a jege ndax bâtiment bi yàqu na loolu ci biir nag beneen décor moo fa am ndax matériel médical yi fa nekk lépp daanaka yàqu ki koy xamal la du kenn kudul maîtresse sage-femme bi nekk ci poste de santé bii le matante bi màgget na parce que depuis le temps de colons la màgget na trop. màgget na trop matériel bi tamit màgget na parce que lu ñu utiliser chaque jour muy dugg ci ndox di dugg ci eau day dem ba dafay érodé donc tout temps di ko renouveler dafay dañ koy bëgg. gaa dañ fi tabax maternité bu bees waaye yéexaay bi am ci tabax bile tax na interpeller autorité communale yi. mais maire euh, état mi ngi tabax benn bâtiment depuis octobre ba c'était en stand-by gis naa tey ji ñu commencé waat seen travaux yi donc ñoom dañ leen di ñaan ñu fexe nu maternité bi gën a c'est gën ñun vraiment. situation bi nak taxna na yi nek ci société africaine de raffinage dadi di andi ndimbal ñom nak jox nañ ay matériel médical yu am solo poste de santé lé mais ñaari don yépp mat na 3 millions de francs don yi ñi indi du matériel médical yi nga xamante ni la maternité di soxla ay matériel même lampe baladeuse la ay matelas ay à l'aise ay euh, tout ce li maternité dal di soxlo pour accouchement wu jigéen. don de matériel médical bi dañ ko amal rek ci cadre bëss bi ñi magal jigéen ñi waye SAR tamit dafa bëgg rek dal di am taxawaay ki li ñuy duppee responsabilité sociétale ci gox bilee jërëjëf na Lansana Diané ñu des ba tey ci banlieue bu ndakaaru daal di wax ci euh, coowal kër ya ñuy daaneel ca euh, gàddaay mbir mi le dina leer fukki fan ak benn ci weeru mars euh, bi ñu nekk waaye nag kuréel bi nga xamante ne moo boot ñàcca yàqule seen xel dalu ci benn yoon ndax nag ñoom fàttali nañ li coow li seen diggante la ak Babacar Fall ba tax na sax nee nañ dafa bëgg rek daal di salfaañe yoon ngir rek mën a am ndam ci boobu bu lekk arte fàtte fàttali nañ itam moom Babacar Fall moomee dañ ko euh, daanoon waaye tamit tëjoon nañ ko ca euh, kaso ba daal di koy tekk daan bu nga xam ne dafa toll ñeenti milliards ci sunuy koppar ca atte bu njëkk ba ñu amaloon ca première instance ñu teewlu kàddu yu euh, Babacar Tine moom nag moo yor kàddu ku bi boot ña yàqule ci boobu le mbir keroog ba ñu mujjee audience dafa bàyyi Babacar Fall mu dellu këram ci koo xamante ni jàppoon waroon nañ ko jàpp depuis le 14 septembre 2017 ñu jàpp ko pendant une semaine def plaidoirie juge bi ordonné ñu ñu bàyyi ko mu dem këram beneen bi mooy que ni euh, Babacar Fall avocat général bi nga xamante ni moo représenté état bi dafa ñëw taxaw ni Babacar Fall prison la jóge te ñun ba ñuy dugg ci audience bi keroog. ñun dañoo ànd ak moom dugg ci biir tribunal mu wàccee ci taxi ñu présenté ñu ni ko ñu ne euh, tri euh, parquet la jóge rëbës la jógee léegi nag boo dajalee yooyu yëpp ñun ñu ne ñu amuñu espoir que ñu jox ñu dëgg le lundi bii di ñëw muy le 11 mars. boo gisee fee yooyu yëpp am ñu ne kii peut-être am na ñu nekk ci ginnaaw walla am na ñu koy jàppale pour ko situation bi ñu ñu mën koo jox dëgg suñu kaw ñun nag taxaw nañoo moom tribunal première instance ba condamné ko ñaari atu kasso mu war ñoo fay amende ba pare tëdd tëdd bi nga xamante ni tant que fayuñu du génn mooy contrainte par corps bi. deux ans deux ans de prison. amende ça tourne autour de 4 milliards. maintenant lu ñuy wax mooy tribunal ñu ngi koy xaar altiné pour mu àddu ci dossier. ba tey ci wàllum suuf ñu jàpp ni mooy xolu Ndakaaru zone des ñaay nag jamono ji mu ngi dund lu tar lu jëm ci coowal suuf wala sax xëccoog dëkkuwaay mu doon lu nga xamante ne moo tax ba nguurug Sénégal ah, daal di jël dogal ci ne rek foofe daanaka kenn mënu fa dëkk mu loon loo xamante ne eh, ña fa bëggoon wala sax ña ko doon jëfandikoo daal nañ koy rafetlu bu baax bëgg ñu daal di eh, jëfee boobule dogal ngir rek ñu mën a defaraat alam beeg bi ca fànn càkk Mañoon Aydara ñu ngi fii eh, ci zone des Niayes bu pikin eh, file nag am sax ñu koy duppee technopole mu doon barab bo xamante ne ni njanaaw yi dañ fiy ñew lol leneen lo xamante nañ ko tamit bokku na ci ñu ak lu ci melni nap ak yeneen ak yeneen ji file di jànkoonteeg ay jafé jafé yu metti la ko nak sabab modi Nako askan wi bëgg momalé seen ci walum suuf lolé nak waral ba gouvernement bu Sénégal jël ay dogal dogal dogal boobe mu di eh, kenn bañ faa jële ci ab suuf ngir di ko jëfandikoo ci sa coobare bopp loole nag nekk loo xamante ni bii eh, kii nga xamante ni moom xam-xamam dafa màcc lool ci wàllum alam gi da koy rafetlu. kon dogal bu gouvernement bi jël tey maanaam di sàmm zone boobu loolu lu am solo lu vraiment ñu ngi koy rafetlu ñun environnementaliste parce que yaakaar na naa point boobu bu ñu ko defee mën nañ ko def un pôle économique parce que bu ñu sàmmee biodiversité bi. di ko conserver di ko exploiter yaakaar nañu valeur économique bi dina jógaat ba nga xam ne ne nanu mën créer emploi pour xale yi. dogal boobee jóge ci gouvernement bi mu mel ni kii nga xamante ne moom ca la muy yëngatu moo di mbayum dër ci barab bile da koy rafetlu bu baax a baax waaye ca geneen fànn ga mu ngay woo ñi nga xamante ni ñooy kilifa yi ngànk réew mi ngir ñu topp ci loolee ngir mu mën a am. avant quoi. su la gën a neex. waaw boobu moom neexoon na quoi ba fu ñu ba ba kii ba fu ñu taxaw nii sax fii nii fii nii si dex bi fii nii dafa amoon ay jënu waas maire yi fii lañ doon ñëw di jël seen jën di yóbbu di jaay waaw ak kat yi yëpp mais soo gisee mu mel ni gaa gaa yëpp rar rek dafa yomb quoi mais da ngay signé nga ñëw ñëpp xam ne yow li nga si woon mu ngi nii ñoo xam ne ah makki kat lu mu waxoon kat muy nii mais ay dëgër dëgg si rajo bi nii nii nii xam nga fekk rien dara booy signé daal signé loo xamante ne danga koy signé tey bu subaa ñu appeler ko ko mu jeex. bile barab nag ñu daal di koy jàppe xolub ndakaaru ci wàllum naataange waaye euh, loole mu mel ne lu doon nara réer la ko sabab nag moo di euh, ci foqalek doomuk aadama ci wàllum suuf waaye ak lu ca mënti am ñuy rek yaakaar ginnaaw dogal bi nga xamante ne ni moom la kilifa yi ngànk réew mi daal di jël euh, ci bile barab dana ko nag delloowaat naataange gamu amoon ngir lépp. loo xamante ne nii jotoon nañu ko faa faagaagal mu gën a naataat ba mucc ayi ba jërëjëf Mañone di sa Seck dañ ko rek war a dugal ci résidence surveillée ndax nag moom dafay euh, jural jafe-jafe jàmmi réew mi du samay kàddu ay kàddu la yu tukkee ci coordonnateur des forces vives yu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nag euh, nee nañ dañoo rek war a rafetlu wooteeg waxtaan bi nga xamante ne njiitu réew mi amal na ko jëmale ko ci kujje gi waaye tamit ñaawlu nañ li ñenn ci kujje gi daal di rek euh, dummooyu boobu lekk woote nga xamante ne da du def lu dul yokk jàmm fii ci réewum Sénégal ñu teewlu leeral yi ak Abdoulaye Ndiaye. wooteeg njiitu réew mi cib dialogue nag mu mel ni jamono ji mooy waxtaanukaay ci lépp lu jëm ci langue politique yi di jëfin wu am solo woo xamante nag ay ñoñam bokk ci coalition benn bokk yaakaar dañ ko rafetlu jàpp sax ni rafet na itamit ci yenn ci ay candidat comportement bi ñu wane ngir fas yéene wujji woote bi ngir waxtaanee réew mi. 2007 ba Abdoulaye Wade gagné moom woote wutoon waxtaan. woote wutoon diisoo dafa organiser conférence de presse ne yéen ñi ma gañe yéen ñëpp dama leen di tëj kaso parce que nii ngeen mel lii ngeen def dugg na fii naka si dul noonu président Macky Sall nag képp ku ko xam xam ne ku am yar la xam ne ku am am am am teggin la xam ne ku bëgg jàmm la xam ne ku bëgg Sénégal la. ñi nga xamante ne nii d'accord nañ pour wuyu président de la république ci diisoo boobu noonu ci waxtaan boobu noonu ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di remercier bu ki mel ni Issa Sall. dëkk bi foog faut ñu waxtaanee ko parce que dëkk bi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo ko moom te nag bu waxtaan amul démocratie du am te bu démocratie amul développement du am c'est quasi impossible. waaye nag ñi nga xam nag ñoo di force vive bu coalition présidentielle bi yàq nañ lu mel ne xamee yenn ci ay candidats ñaawlu seen doxalin mu di Ousmane Sonko ak Idrissa sa bu ñu sukkandikoo ci carte du coordonnateur bi mooy leader parti réew mi moom nag menace la jamono ci kaaraangeeg réew mi gën a xóotali kàddam dañ ko war a rek daal di. ñu def ko su à résidence surveillée Idrissa Seck dañ ko war a def ci kër di ko surveiller sinon lu ci mënta xew ëllëgit li olof di wax li raam ci li raam ci ñag ba la jëm depuis boobu léegi dégg ngeen tekk tekkaaralam bi mais dégg ngeen ñi ñi ànd ci coalition bi avec le fou de le fou de Baobab xam ngeen kan mooy le fou de Baobab Barthélémy Dias laay wax dégg ngeen ko dégg ngeen officier bi lu mu wax. ak li yeneen ak yeneen li ñuy lire ci réseaux sociaux yi à travers la diaspora léegi nag dañuy bàyyi Idrissa Seck mu taal suñu dëkk bi sagam Macky tallal ne ko loxo mu bañ pour ñu waxtaan ñu diisoo léegi taal dëkk bi la bëgg duñ ko si bàyyi. bu ñu sukkandiku ci ñi di force vive bu coalition Benno Bokk Yakar mbotay gilee moy nak dañu japp ni président Macky Sall bu féké dañ kaa tabaat ci bop réew mi du dara waralu ko lu nak bilan bu am solo bi nga xamanteni askanu Sénégal rafetlu nañu ko ci liggéeyam mu mel nak lañu xamle waxtu campagne daal ne jex tak won nañ ko ginnaw li jot sëkk rek moy njiite réew mi rek fexé bo li nga xam modi soxlay askan wi gën daal di faju ngir lépp ci intérêt de la nation jërëjëf Abdoulaye Ndiaye ana lan mooy ëllëgu Benno Bokk Yaakaar ginnaaw nag bi nga xamante ne si am nañ ndam ci wërngël bu njëkk ci jongante palug njiitu réew euh, bi fi doon am ci fan yi ñu euh, génn séddale post wala sax xëccoo place bu gën a bakkane ci bopp réew mi loolee mën naa jur euh, ñagas ñagas ci seen coalition boobe li ni mel di gis-gisu ki nga xamante ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllum politique di Ibrahima Bakhoum moom taskatu xibaar bi daal di di euh, jàpp ne yooyu les places sax meuna tax ba xel meuna tey ci bobu boobule coalition di Benno Bokk Yaakaar ñu tewlu leeral yi ak um Khayri bass yaatu la am ci jongante gi ñu génn doon tànn njiitu réew ak 58,26% virgule 26 pour cent moomee nag moo di coalition Benno Bokk Yaakaar mi nga xamante ne bari na lool lu muy fësal ne moo gën a yàgg ci coalition yi waaye tey ji yàgg googee menes na ko laam-laamee suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu politique di Ibrahima Bakhoum. Eh, Malick ko Benno la bokkoon Cheikh Bamba Benno la bokkoon ak ñeneen ñu bari ñu fa bokkoon te génn fa leneen lu ñu mën a laam-laamee moo di ëllëgam suñu sukkandikoo ba tey ci borom xam-xam bi ndax kat séddale gu ñu nar a séddale poste yi gannaaw ndam li nag mën na andi coow te lu ni mel li nga xamante ne moo di élection locale yi ñu dëgmal mën na ko firndeel ñu bari ca ñu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom dañoo fas yéene samp seen dënd ci jongante yi ñu jëm. biir APR dong rek xuloo baa nga fa lu jiitu tey. lu jiitu sax présidentiel dañuy sóorawaale kenn di bëgg a positionné balaa ñuy accès ci local yi te local yi moom wax dëgg dafa am foo xam ne fa la liste yi mën a yem la fal gi ci ëpp doole mairie yi par exemple dafa am fu mu mun a yem ñoo ñëpp kenn ku nekk na nga séddoo tey dina xaw a jafe léegi biir bennoo seen bopp am nañu jox lu ñu ooy bennoo naam présidentielle bi dem nañ ba président seen candidat gagné ñoom kenn ku nekk wala boog ñu ci bëri kenn ku nekk mu ngi taxaw di bàkku ne man maa tax nga ñu gagné fii dara sotteegul dara leeragul ci kenn ci ñoom benen firnde mu di li parti socialiste dal di xamle fësal rek ne mom bëgg nañu jox ko lu upp ñaari ministre ci gouvernement bi. benen buntu ci ciowo ngi non ndax nak dama fogg ne ji ki diggé woon ci ay jamono ñaar fukki ministre ak juróom xam ñaar fukki ministre ak juróom yak ñent dem ci bam mu yàgg ñuy laajte ndax bu yëfi mot da téeméer rek wala mot da ñaari téeméer ci kenn ku nekk ndoboy tank fi ndoboy tank fe bu fekk ne non lañ na a continuer ci réew mi gouvernance euh, normal mom tañ ko teg ko mu di waxtane politicien manam nu ñuy def ko kenn ku nekk am dara ci sa poste jongante yi ñu dëgmal ñu dippee ko ay local ñuy ko jàpp ci weeru décembre bi ñu dëgmal jërëjëf Oumou Khayri Bass ginnaaw Auchan Carrefour nag yegg si na fii ci réewum Sénégal loole nag jur ay coow lu euh, bari ñu jàpp ne rek jamono ji marché bu réewum Sénégal euh, li nga xamante ne moo di mankaan yu réewum France yi bari nañ fi lool Guy Marius Sagna bokk ci FRAPP France na fi jóge jàpp ni wutuñu fi dara te tamit amuñu fi euh, place waaye li ni mel bokkut ak gis-gisu ki nga xamante ne moo di àll Dieng moom mi nga xamante ne moo di njiitalu UNACOIS yeesal eh, gis na ni rek loolu dafay tex ñenn meek njaay mi gën a mën am solo fii ci réewum Sénégal ñu ànd ci ak Ramatoulaye Diouf. gannaaw Auchan Carrefour nag dinañ ko samp fii ci Sénégal ak fukki magasin yu fi nar a nekkagum bu ñu sukkandikoo ci directeur exécutif bu UNACOIS yeesal li ni mel nag dina amal njariñ Sénégal. Eh, aussi commerce àdduna bi moo ko laaj dañ ne eh, d'abord mi ngi créer emploi ensuite. produit yëpp yi muy jaay fii ci réew mi lay jógee donte am na produit yu ñu importé bien sûr ci gàttal bu dul woon yokk koom-koom bi duñ fi ñëw parce que dañ fi ñëw fekk marché concurrentiel boo xam ne ni dañ naan li fi nekk di dox mooy la loi de l'offre et la demande. wante nag bile multinationale dafa war a bàyyi xel bu baax bëgg-bëggu askan wu Sénégal ci noonu sax am na ay règles yu ñu jot a tëral. Carrefour bu ñëwee day def ni Auchan def te benn loi moo leen concerné loi bi. biñ ci échangé balaa muy dem assemblée nationale directeur commerce intérieur yi invité nañu man demoon naa ak président national ak ñeneen ñaar ñu bokk ci délégation bi biñ demee fa lañ yendoo waxtaan te daje nañ fa ak waa Carrefour fekk ñu mooy euh, espace la ñuy conse la ñuy considéré diggante ñaari boutique Auchan diggante boutique Auchan ak beneen boutique ak diggante boutique Auchan ak beneen boutique ak marché yi avant espace boo xam dañ koy imposer kenn mënul installer boutique ci digënté bi te respecté euh, descente boobu loolu moom bokk na ci li nekk ci projet de loi bi. wante nag bu ñu sukkandikoo ci Guy Marius Sagna bokk ci France dégage moom nag dëgg na ci tànkam mi ngi xamle ne nañu defoon ci Auchan la ñuy def ci Carrefour. Euh, magasin yu am doole yooyu nga xam ne ñoo commencé dugg fii ci Sénégal liñ fi nar a jur bi ci njëkk mooy faagaagal ay entreprise mooy faagaagal ay xëy ak gont maanaam ay emploi donc liñ doon wax ci Auchan moom la ñuy wax ci Carrefour moom la ñuy wax keneen ku dul Auchan ak Carrefour ndaxte euh, jàngoro moom jàngoro rek lu mu nekk. ñu sàmm li nga xamante ni mooy liggéeyu askanu Sénégal loolee mooy seen xeex bu ñu sukkandikoo ci activiste bi ba tax na muy xamle ne seen xeex dinañ ko wéyal. ah dinañ euh, joxante loxo ak ñeneen ñi nga xam ne comme ñun seen gis-gis mooy doomi réew mooy tabax réew rawatina ak commerçant yi dinañ wéyal xeex bi ñun dinañ waxtaan ak ñoom pour xool yan jéego yu bees euh, yu wuteeg xëy na jéego yu ñu jotagum def ba léegi la ñu teg ngir fecc Sénégal. gannaaw karafuur nag ñu mëna jàpp ne Leclerc tamit dina ñëw fii ci biir Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Unacois Yeesal ba tax na àllajan di xamle ne dañoo tere bërëbu jaayukaay yu mag yi di jaay détail ay produits alimentaires. jërëjëf Ramatoulaye Diouf was ñëw na nag daal di euh, dolleeku si si xeetu ataay yu bari yi nga xamante ne xamoon nañ ko fii ci réew réewum senegal was nag di ab njaxas bu nga xamante ne dañ ci boole ay xobu garab yu bari mu doon nag njaay bu nga xamante ne si jamono ji dox na lool fii ci réew mi ba tax na sax ña cay yëngu jàpp ni askan wi dañ ko bëgg lool ñu teelu reportage bu Philomène was doon ataaya bu ñu bëri ci sénégalais yi taamu ci ab kiosque bu am couleur bu verte ñu daal di fay rangale ay thermos yu bëri yu daal di am ataaya boobee nga xamante ne ni nañ koy defaree xaw naa jafe. Ah, war nga jëf mi lay doon après da nga koy baxal ba mu ba muy waaj a bax ba tàng nga def ci naanaa bi tegg ko bu seddee nga seeg bu suukar loolu mooy baatu was mais man was may defar nii man maa ko cereel sama bopp daal. parce man sama was dama koy defalee citronnelle ngun ngun naana ak citron ak limon damay toog kenkelibaay ba pare ba kenkelibaay bi ñor ma teg ko à part ma jël kenkelibaay bi teg ko jël ndox jël tànk kenkelibaay mélange ko ba mu lese ba mel ni comme nii nga xam ne mel ni couleur bi ni mel ko teg ko ci gaz bi def ci citronelle bi mu ngi naanaa bi léegi bu demee ba xam ne mu waaj a bax parce que bay waaj a bax ma tegg ko après xent ko mu daal di am taxawaay bu yem rek xale bu góor bi nag mi ngi amalee liggéeyam ci benn koñ rek ci West Foire te li muy xamle sax moom mooy liggéey boobule dox na lool si man la ñuy liggéey waa am na ku ne côté côté Philippe Senghor am na ku ne Birame Doré bi ñu koy yaatal daal waaw maa ngi sama bopp dëgg fa yàlla maa ngi gis sama bopp daal parce que yàgguma ci daal waaye wax dëgg fa yàlla am na ñu jaar ci man it dem leneen di ci gis seen bopp daal sant yàlla di nga xam ne daal xéewal daal mi ngi ci daal wax dëgg yàlla ñi nga xamante ni ay client am lañu daal dinañu taamu bu baax njaayam bile heure bu ñu xëyee wax dëgg yàlla dañuy naan was dañuy naan café nit ñi dem dañuy jógee Dakar fu ne foo xalaat ci dëkk bi ñu ñaa koy jógee di jënd si was waaw nit ñi dañ ngay tàmbali ñoom parce que ñuy jaay café ak was bëri na ci dëkk bi mais set bi moo ci am solo parce que nit tim liy dem sa biir war nga xam lan la waaw was bi tamit nice parce que was bi sax sama yaay da koy naan damay ñëw di ko commandé di ko yóbbul kon baax na ndaw bii di yëngu ci wàllum njaayum ataaya was ak yeneen sax mu ngi ñaax yeneen jeunes yi ngir ñu amal seen liggéeyu bopp te bañ a xaar dara ci nguur gi. jërëjëf Philomène Tine yàgg si nañ si ponk bu mujj xibaaru digg bëccëg yi di li ci yëglekaay yi ñu ànd ci ak Serigne Modou Mbacké Niang. ajjumay tay juróom-ñetti fan ci weeru mars kay yépp ñoo xey sargal jigéenu Sénégal ñi turbine ni lu mënta ñak la lu jaadu la ndax jigéenu Sénégal yàgg nekk ay jàmbaar yàgg xeex ngir réewum Sénégal yàgg taxaw ci bép anam way ci bép terrain mo xam terrain politique ba ci sax terrain de guerre ngir gël réew mi kay bi ni lu way gatt dégg-dégg dégg ñi wax talaatay ndeer talaatay ndeer ji nga xamanteni bi ay jigéenu ndeer lay samba bay bëggoon tek loxo jàpp leen ay jam jigéen xeex ak ñoom ba seen doole jeex ñu bañ ku leen jàpp tax ñu boole seen bopp ci benn néeg taal ngir faatu lépp ngir bañ noteel boobaak léegi ñaax téeméeri at ci biir Sénégal jigéen di xeex ngir jigéen moom boppam waaye it ngir Sénégal siggi dox ci tànki koom-koom yëglekaay bi ni lii dey mënta ñàkk bëccëgu tey bii ñu sargal jigéen ñi fàttaliwaat seenu njàmbaxte las ni mooy dëgg fu góor taxaw jigéen nga ca wetam demal ci wàllum politique fàttaliku député Caroline Faye mi nga xamante ni bi moo fi njëkk a nekk jigéen bu doon député ci pencum ndaw réew mi ñu ni deeta waaye soxna Maymuna Kan mi génn àdduna bari ki démb premier mars nekkoon moom itam ministre xoola ku mel ni ki Aminata Mbengue Ndiaye fàttaliku leen jamonoy Mame Madior Boye ak Aminata Touré ñoom ñi fi njëkk nekk jigéenu premier ministre ci biir Sénégal waaye itam ki fi nekk tey ministre bi dénk njaboot gi muy soxna Ndeye Saly Diop Dieng mi nga xamante ni moom itam mu ngay wane ak njàmbaax fa mu nekk yëgle kaay bi ni ak loo ci mën di dégg daal ba ko tey bi jigéen ñee ko moom source a moom ni ginnaaw jigéenu ndeer ak jigéen ñi fi mës a jaar ci wàllum nañu dem xool jigéen tam ci armée bi yëgle kaay bi ni fàttaliku leen soxna anacé mu fay mi nga xamante ne bii moom kenn du natableeg jàmbaaxteem waaye itam ku mel ni kii Abi Diallo première femme policière ci biir Sénégal waaye it capitaine Mame Rokhaya Lo mi nga xamante ne bii moo fi njëkk nekk jigéen bu doon pilote maanaam dawal ko to avion yëgle kaay bi ni waaye itam ku mel ni madame Maimouna Ndoye Seck mi nga xamante ne bii moom itam jigéen la waaye tam njëkk a doon polytechnicienne yëgle kaay bi ni lii mooy findeel nii njàmbaar jigéen ci biir Sénégal yàgg na fi cayit nag lun gën di dem muy gën di law l'observateur jaar ci wàllu guni mel yëgle bi xëy becc ay kanam yoo xamante ni ñu nu xam la ni ay jàmbaar ku mel ni ki Fatou Diagne Senghor jàmbaar la waaye tam soxna na Nafisatu Wadd mi nga xamante ni bi ak njàmbaarteem foo ko takk jéggi na ko waaye it beneen concert di soxna Awa Mbaye yëgle bi yëmu ca ma ngay delloo yàlla sa Mariane Siva Diop mi nga xamante ni bi bu yàggul la génn àdduna yëgle kaay bi ni dëgg-dëgg day ay jàmbaar ñoo ngi nii enquête ni kenn du ko lam-laamee ak njàmbaar yàgg naa feeñ ci biir Sénégal jóge ci jigéen ñi waaye nag jigéen ñi tam teewul ñu ngi dund ay benk ñenk tax seen néegu sëy ndax nag violence conjugale yi moom bari na yëgle kaay bi ni xoolal bari na góor ñoo xamante ni bi tey jii duñu sax sargal seen soxna waaye ña koy teg loxoo ko dóor ak bundu xataal yëgle kaay bëccëgub tey bii ñu wax dëgg góor ñi ba lépp luy bu ndoxtaal jigéen ñi mën koo dakkal ñoxor njaay nga dégg jigéen bu góor dóor ba mu jaaree fa génn àdduna muy lu ñaaw yëgle kaay bi jox kàddu gi Fanta Alimatu Umu ay Aïcha ñoom lañu dund seen néegu say mecc na lool lépp di ay xeetum jafe-jafe leese ko fël ci benn wàll yëgle bi ni nan ko wax ca dee waaye lii dëgg cee dëgg mooy yamale bi war a am diggante góor ak jigéen moo amul dem na ba ci sax administration cadre la muy am buñ ko xoolee ak jigéenu cadre dana wuute lool ca loolu nekkul lu jaadu la jigéen di def ca liggéeykaay ba la góor di def kon wuute warul la am coolum salaire ñenn war a xam dëgg ña ngi ca sunu làmb yëgle kaay sunu làmb xëyee ko di ñu beccil ay kanam yoo xamante ne bi ñun war a xam la seenu njàmbaar ci wàllum làmb ci biir réew mi yëgle kaay bi ñuy xool leen ku ni nga ti seen mi nga xamante ne bi jàmbaaru faq tëdd la si gil na arène bu Sénégal jigéen dëgg la boo xamante ne bi dafa am caractère waaye bu ñu fàtte ndiku cuun mi nga xamante bi làmb ji xam na ko saa yu yuuxoo ñëpp bëgg ndikku nag nee na anam bi nga xamante ni bii nit ñi ñu ngi koy xoole géwél yi moo ko metti su fi jëm moom dafa jàpp ni fi mu toll ni jigéen ñi daal dañ leen a war a jox gëdd fu laal leen fay daal leen waaye am na ñoo xamante ni bi duñ wax lu baax mukk ko jëmee ci jigéen keneen ko wane na xaru xolam mooy Isabelle Sambou moom mi nga xamante ni bi yàgg naa si biir Sénégal ca bitim réew indi fi ay yu bari waaye ba léegi Sénégal boole ca ni ñu ci baree bari wala njàmbaar ba dem ñu bàyyi ba nu génn àdduna ñu soog wax ci ñoom lu baax mënuma jeexal yéene kaay yi te duma sargal jigéenu Excaf Télécom li ko tàmbalee RDV DTV rajo Dunia FM ak mbooleem bàngaasu kër gi ba ci waa TNT ñu ngi leen di sargal jëre ngeen jëf ay jàmbaar ngeen kenn du yéen jërëjëf yow itam Serigne Modou Mbacke ña jigéen yàgg naa def jaloore fii ci àdduna rawatina fii ci Sénégal di ci jaare rek di màggal képp kuy jigéen ci euh, bés bi li mel nag moo ndar képp xibaar digg bëccëg gi di leen euh, jaajëfal ci ànd geek topp gi di jaajëfal itam ña fare woon ca euh, régie rédaction bi di leen jox dig daje ci su neeneen jotaay xibaar laata loolu ñu ngi leen di ñaanal kenn dalub jàmm ak jumaa mubarak Yacine Boubou, Aline Seto Mediata, Caroline Faye, Anthem Djigen des femmes fortes, des femmes qui sont des héroïnes pour le Sénégal. Le 8 mars, une occasion pour rendre hommage à toutes ces femmes et à la femme de manière générale. Je pense à celles battues, celles violées, celles maltraitées, les femmes leaders, les femmes au foyer, pour ne citer que celles-là. Le 8 mars, je vous donne rendez-vous à partir de 16h30 en direct dans Toi-même tu sais, une émission avec les femmes et pour les femmes. Jérôme ñetti fan ci au mars bis bu aduna bi yépp di jagleel jigéen ñi jigéen ci njàmbaarteem jigéen ci bëgg boppam rawatina jigéenu Sénégal loolu li moo tax ba DTV jël plateau special jagleel ko jigéen ñi ngir delloo leen njukkal daañu dem ci ay gox yu fasantikoo ci biir Sénégal fekk fa jigéen ñi ci la ñuy yëngu ci seeni liggéey ngir waxtaan ci ak ñoom waaye nag ànd ci plateau bi ak ay boroomi xam-xam ngir toj ak faram-fàcce nees mën a def ngir gën a jox jigéen gëddaam ci bépp anam rawatina lu jëm ci wàllu koom-koom kon bu leen ko kenn nettali 8 mars bi